réalisation yi nga xam ne président mi Macky Sall mi ngi koy def waxuma sax depuis 2012 depuis 2012 ay réalisation dafa fekk mu doon jiitu réew mais laata loolu am na liggéey yu mucc ayib yu mu def ci réew mi kon ñun bu ñu bokkee ci njabootam gis mu yore taxawaay boobu gis muy liggéey liggéey boobu li ñu ci war ñun mooy taxaw jëmmal loolu wane ko jàpp ko wax ko doxee ko te nag day bokk ci ñu am suñu makaan di ci waxtaan ak nit ñi ci loolu kon dañu jëm ci ay jongante yu am solo muy ay jongante gox-goxaat ñëpp xam nañu président dafa ne politique de proximité moo tax mu ne équité territoriale kon tey gox-gox bii ñu nekk muy Sicap Liberté ñun ñi fi ne ñëpp muy militants yi nga xam ne ñoo nekk APR muy ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar ak mbooleem askan wi nag ndax tey ñëpp a wuy si ànd nañ laxasaayu ne dinañ jàppale président Macky Sall ndax buñ ko jàppalee defaluñ ko kenn ku dul réew mi te ñun ñooy réew mi kon buñ ko jàppalee suñu bopp lañ ko def xam nga ndaw yi tab ñu rafet na ñu leen di sant di leen gërëm waaye ñun ñii ñëpp ñun ñoo njëkk a tabb suñu bopp rawatina man mii nga xam ne dama bokk ci gouvernement président Macky Sall ñu xam li mu bëgg xam li muy mbébét mu am pàcc yu am solo yoo xam ne daf ñu ko si sant bërki démb rek la ñu adopté assemblée nationale loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire kon yooyu nga xam ne président di ko def balaa du ñu xaar kenn ku ñu tabb dañuy tabb taxaw ndax loolu moo ñu war tey ñun ñëpp dañu war a taxaw xeex ngir bëgg-bëgg ak yéene ak taxawaay bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci biir réew ñu jëmmal ko ñu fësal ko ñu doxee ko waxee ko kon loolu moo ñu tax taxaw fii te lépp lu ñu ci sas sant duñ ko danañ ko gàddu incha allah. Zahra Iyane Thiam candidate partout où le parti la coalition le président de la République me pointera ou m'indiquera.